mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faral di déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak banneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur El Hadji Amadou Lamine Bathily El Hadji Amadou Lamine Bathily nekk spécialiste en médecine nucléaire euh, waaye tey suñu waxtaan wi dañ koy daal di jagleel jàngoro bi nga xamante ne moom mooy di thyroïde laata ñu ñuy xuus jëm ci particularité bi nga xamante ne moom mooy spécialité ma El Hadji Amadou Lamine di ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo mi FM waaye laata loolu vraiment sant la gërëm la vraiment ci sa disponibilité ginnaaw bi nga nangu nangoo wuyu ci suñu invitation bile. merci madame Fall ñu ngi lay euh, remercier ci invitation bi di nuyu sa mbokki ñuy déglu yëpp ci réew mi FM ci mhm. quatre vingt dix sept point cinq di leen gërëm ci lu bi mhm. donc di rafetlu émission bi di euh, feeñal aussi suñ mbégte ci partager ak euh, seen auditeurs yi ak auditrices yëpp ci wàllum thyroïde ak mhm. lépp lu ko mën a faagaagal ci jàngoro. Euh, sant ko gërëm ko moom docteur El Hadji Amadou Lamine Bathily docteur euh, dañuy tàmbali rek euh, ci li nga xamante ne moom moo di thyroïde à chaque fois dañuy dégg thyroïde goitre fii tey boo ñu doon expliquer lan mooy thyroïde ngir auditeurs yi ñuy déglu euh, xam luy jàngoro thyroïde lan nga ñu ci mën a wax docteur Bathily jërëjëf thyroïde ab organe la cër la bu nekk ci ci ci booru put gi organe boobu nag dafa am ay ay ferñeent ñu koy hormone yoo xam ne moo koy defar léegi nag goitre moom dafa nekk loo xam bu thyroïde bi yokkee volume loolu la ñuy wax guwaat mm-hmm. donc bu néewee léegi nag euh, lu différencier goitre mooy goitre bi mën na nekk goitre boo xam ni mu yokk fekk ne thyroïde bi ni muy fonctionner dafa ëpp lool moom la ñuy wax goitre bu ànd ak hyperthyroïdie mën na nekk goitre thyroïde bi yokk mais thyroïde bi ni muy fonctionner dafa yées moom la ñuy wax goitre bu ànd ak hypothyroïde mm-hmm. donc thyroïde moom organe rek moom la ñuy wax bollox mm-hmm. mooy nekk ci put bi mm-hmm. waaye bu ànd jàngoro boo xam dafa yokk volume bi dafa yokk cër bi dafa yokk ba ëpp loolu la ñuy wax goitre Mmh, goitre boobu nag dañuy xool ndax dafa ànd ak hyper moom maanaam thyroïde bi day fonctionner lu bari wala dafa ànd ak hypo donc bi si gën a bari nag li ñuy saytu ñun te nga xam ñun ci intervenir mooy bu ànd ak hyperthyroïde mmh. euh, wax nga ko docteur euh, Bathily mu mel ni eh, goitre su ma la déggee dafa am pàcc am na hyper am na hypo euh, lan mooy différence bi comme ni mu ko waxee thyroïde bi dafa am ay ferñeent ay hormones yoo xam ne moo koy defar moom la ñuy wax hormone T3 ak T4 hormones yooyu ne dañuy agir pratiquement danañ am effet ci pratiquement cër yi ci yaram bi yëpp donc dañu am solo donc thyroïde bi nag ñaari hormones yooyu muy defar léeg-léeg mu koy defaree mën na ëpp maanaam mu ciy defar lu ëpp que li nga soxla loolu la ñuy wax hyper wala mu ci defar lu yées li nga soxla moom la ñuy wax hypo donc ñaar yëpp nag ku nekk ak ni muy manifesté wu ak euh, niñ koy jëlee en charge mais li ci gën a bari li ñun li ñuy mooy goitte bu ànd ak hyper mooy li muy fonctionné du bari boobu bu ñuy wax maladie de base de moo ci gën a bari tey dal suñu bokku jigéen ñi. Euh, maladie de base de maanaam. boo amee base de maanaam boo amee day ànd day ànd ak ay ay signes mm-hmm. yoo xam ni signes yooyu am na ci yoo xam ni danga koy am ci hyperthyroïdie yëpp comme maanaam sa xol di daw bu baax moom xol bi di kii bu baax ngay lox ngay cramp ngay naqari deret ngay jigéen di nerveuse di irritable doo supporte tàngoor mm-hmm. yooyu ay signes la yoo xam boo amee hyper da nga koy yëg mm-hmm. mais nag bu dee malade de base bi la nga xam moo ci gën a fës gën a bari gën di dal mbokku jigéen ñi surtout jigéen ñu jeune femme loolu day ànd ak goitre donc maanaam da ngay am hyper ba pare thyroïde bi yokk mhm. am goitre ba pare bët yi génn mhm. moom la ñuy wax exophtalmie mhm. léeg-léeg aussi mën na ànd ak euh, comme tànk yi ci côté tibia yi xaw a neew yi yooyu day àndooy mooy spécifique ak malade de base donc soo amee hyperthyroïde bi mu ànd ak goitre mooy thyroïde bu yokk ba pare ngay am bët yi di génn loolu très souvent malade de base moo koy def moom moo ci gën a ci gën a fréquente euh, euh, ngay am output bi di yokk ak bëti di génn ndax euh, diagnostic bi neex na déceler parce que wax nga ko euh, peut-être nit ki dina nerveuse wala mu xamante ne rythme cardiaque bi day gaaw ndax euh, thyroïde nekk na jàngoro boo xamante ne diagnostic bi neex na déceler waaw diagnostic bi c'est neex na déceler lool comme bu patient bi amee kii yooyu mandarga yooyu mm-hmm. su seetsee docteur bi donc mu xool ko bu àndeek signaux yi bu àndeek bët yi génn ak mu am guàtt bi dañuy xalaat ne malade de base am na analyse bu ñu koy defloo moom la ñuy wax TSH T4 T3 donc su fekkee da nga am hyperthyroïdie T4 bi ak T3 bi mooy yooyu la thyroïde bi dafa day yokk mm-hmm. beneen bi nag TSH bi boobu day wàcc ndax TSH bi moom mooy agir ci thyroïde bi pour mu defar t mm-hmm. donc analise boobu lañ lay defloo moo koy euh, poser diagnostic bi mm-hmm. dinañ def léeg-léeg échographie échographie bi dalay wan ndax goitre bi ci thyroïde bi yëpp la jël wala dafa am ay ci thyroïde bi yoo xam ne ñoom rek ñoo am fu yokk wala loolu mooy njëriñu échographie bi mm-hmm. donc diagnostic bi mooy lii malade bi yëg waaye bu ko yëgee bu ñëwee ci docteur bi dana ko bindal analyse bi muy def bu koy confirmer ak échographie bi mm-hmm. donc suñ ko confirmer nag nga mën a xam ban faj nga koy proposer mm-hmm. euh, sànq ci sa euh, tàmbalee wax euh, mu mel ni wax nga ñaari yoon que thyroïde xam naa dina dal ndaw ñi ak peut-être mais bu ma la déglu bu baax mu mel ni jigéen yi lay gën a euh, sonal particulièrement jigéen yi nga xamante ne xëy na dañu nekk en âge de procréer wala dañu nekk ci néegu sëy et pourquoi peut-être quatre-vingts pour cent wu pathologie boobu di affecté jigéen en général euh, goitre de plus bi tax muy gën dal jigéen ñi parce que dañu nemmeeku ne feebar boo xam ne day ñëw ci maanaam contexte ngay stressé lu bari donc très souvent jigéen ñi bu ñu nekkee ci néegu sëy ñu am jafe-jafe ci sëy bi naqar yooyu ñu yàgg a dund dafa nekk terrain boo xam day favoriser feebar boobu wala xam nga si ñu fragile mën nañ ñàkk benn parent wala ñu am yenn difficulté yi rek stress bu bari boobu da koy waral di joxe moo tax souvent jigéen ñi di nekk ñu xam ñoom ñoo ci gën a prédisposé pour euh, pour am ko mm-hmm. mais góor ñi dinañ ko am mais c'est rare ci góor ñi ndax xam nga góor ni muy supporter stress ak jigéen xaw nañu nu wute mm-hmm. donc moo tax góor ñi dina leen daal mais euh, très souvent jigéen ñi lay gën a daal ndax loolu bokk na ci li koy gën a expliquer mm-hmm. tey euh, euh, néew lool daan boo doon jël boo woon par exemple sànn daal cent personnes mën nga wax jusqu'à quatre-vingt quatre-vingt-dix pour cent yi jigéen lay nekk mm-hmm. donc góor ñi moom liñ ci sële néew na loolu comparé ak euh, ak jigéen ñi <laughs> waaw euh, bu weesoo stress bi yéen saa ngi dégg ñu naan peut-être euh, yenn alimentation yi ci mel ni peut-être xorom beeg yooyu du koy dégg tey ndax mun nga wéral yooyu information yi nga ñun ñi nga xamante ne maîtriser buñ ko dañ koy farataal di dégg donc mooy que ne boîte euh, bu weesoo stress bi yenn xeetu ñam yi di koy tuur. waaw amoon na par exemple euh, auparavant nga xam ni xorom bi daan jël il en iode. donc amagul woon sel iodé temps boobu amoon na goite yoo xam ni manqué iode boobu da doon faral di def moom la ñaa goite endémique mais depuis que ñu selu sel bi ñu def ci iode systématiquement façon goite boobu daanaka jeex na donc goite bi ñu gën a nemmeeku mooy bi nga xam ni euh, c'est comme sa yaram mooy defar euh, soldaaru yaram bi ñooy mel ni lu xaw a dof dañuy defar ay ay ay anticorps yoo xam dañuy dem ci boppam di di détruire thyroïde bi moom la ñuy wax goitre auto-immune te malade de nekk li ci gën a fréquent mm-hmm. mais bi nga xam ne moom day jógee ci lekk bi euh, io sel iode bi boobu daanaka euh, amatul pratiquement au Sénégal mm-hmm. donc depuis que ñu commencé di def iode systématiquement ci sel bi mm-hmm. waaw Euh, ñi ko ñuy souffrir ci thyroïde ci jëm ci boobu type mhm. thyroïde boo xam ne ci iode bi lay jógee waaye bu dee malade de base dew bi euh, fréquence am mënuñu wax wàññeeku ne bu bu ñu waxul yokk na mhm. waaw mu wàññeekuwul euh, tey wax nga ne thyroïde dafa am hyper am hypo wax nga lépp lu jëm ci certainement waaye lu symptôme yi tey bu ñu doon wax jëm ci wàllum traitement bi ñëw rek ci bi nga xamante ne moo soxal hyper bi lan nga ñu ci mën a wax wax docteur Bathily waaw IPR bi en général euh, traitement bi dañuy commencer ak lu ñuy wax euh, traitement ay garab yooyu jël garab yooyu ñoom la ñuy wax les antithyroïdiens de synthèse donc loolu suñu mbokku endocrinologue yi ñoo koy commencer ñoom ñooy ah, premier euh, traitement boobu ñoom ñoo koy commencer def donc boo jël garab yooyu nag da ngay dem jusqu'à un an ba deux ans su fekkee ni bu ñu arrêté garab yi day ñëwaat wala malgré ngay jël garab yi deñul su ñuy wax bu matee ñaari at rek forcément da nga war a def beneen traitement parce que goitre bi hyperthyroïde bi yàggee ci yow day indi complication cardiaque complication yoo xam ne sax mën na emporter malade bi mën na ko faat donc loolu la ñuy bañ moo tax boo defee traitement médical bi at ba ñaari at marché wul da ngay def beneen traitement yeneen traitement yooyu nag mooy soit ñun bi nga xam ni ñun moom la ñuy def moom la médecine nucléaire di def mhm. wala bi nga xam ni chirurgien bi moom lay def ndax bu fekkee garab yi te na koo faj dañuy wax nga def ñuy wax traitement radical mooy nga jëlee fa feebar bi àla kuli mhm. boobu nag soit ñu opéré ko mooy ñu dindi thyroïde bi buñ ko dindee mooy dootul defar mhm. donc buñ ko dindee da ngay jógee systématiquement hyper dem hypo ndax defaratul dara donc boobaa après dafa am li ñuy manqué lan lay jox mu nekk traitement à vie mhm. mais dañuy préférer malade bi nekk hypo parce que hypo amul complication cardiaque gi mhm. comme yi hyper am mhm. donc bu traitement médical bi marché wul ñaareel donc soit ñu opérer la wala nga def euh, irathérapie irathérapie moom la ñuy def euh, médecine nucléaire boobu dañ lay jox euh, benn garab iode la mais iode radioactif maanaam iode bi day fixé wu ci thyroïde bi am ay rayon yu muy sànni ci cellules yi pour wàññi seen doole ëllëg mm. ñu doon yokkee di fonctionner donc day xeex ñoom pour ñu jëm seyal seeyal ba nga xam ni seen la day néew mm-hmm. donc traitement boobu nag depuis ñu commencé ko 2016 au Sénégal donc traitement bu baax la mi ngi amul effet secondaire te mi ngi am succès yu am solo donc te diñ guaat bi li problème bi mooy souvent jigéen ñi duñ nangu opération bi donc dafay nekk une solution alternative soit malade bi bu nanguwul opération bi donc am na beneen solution mooy jël yoon radioactif boobu donc traitement bi lu possible mais par étape traitement médical bi ngay njëkk a jël su marché wul ba ñaari at nga def soit chirurgie bi ñu opéré la nga def euh, irathérapie mooy waa médecine nucléaire di def ci hôpital général Idrissa Pouye ñu koy boo demee ci yenn dëkk yi sax yu mel ne États-Unis ñoom dañuy préférer directement def traitement irathérapie bi parce que lu tax parce que traitement médical bi dafa yàgg ñaari at patients yi dañuy am problème pour di topp ni leen ko waxee donc day am souvent que mu récidiver donc ñoom dañuy préférer directement dem à au traitement radical chirurgie mhm. donc mhm. boo demee aux États-Unis si moom la utiliser en premier niveau mhm. mais fii au Sénégal on le fait en deuxième niveau mais euh, de plus en plus ñu ngi gis malade yaa ngi ciy gën a intéressé wu bi ñu ko xamee mais problème bi mooy ils ne sont pas suffisamment sensibilisés ci euh, faj boobu que am na Sénégal donc peut effort yi foofu lañ ko war a jëmale pour que ñu gën koo xam gën a xam ni traitement boo xam ni bu bokkut ak chirurgie bi. Mhm. Euh, docteur wax nga ko il faut ñu sensibiliser yi nga xamante ne ñoo yor feebar bi wala ñu sensibiliser askan wi sax ci traitement yi mais dañuy des ci traitement boobu rek wax nga ko ci sa biir wax traitement bi mun na yàgg mun na def deux ans wala mu ëpp ko sax euh, koo xamante ne eh, yenn saa day fàtte wala mu dem ba nga xamante ne moom jàpp na traitement bi gudd na bu ko interrompre eh, fekk ne wéerul euh, ban conséquence vraiment lu ko mën a moom. bu jëlul garab bi correctement bu jëlul garab bi correctement y a encore plus de risque de récidive mm-hmm. cest dire mu ñëwaat te bu yàggee xam nga euh, li hormone yooyu mu defar day agir ci xool bi loolu muy agir ci xol bi day indi complication cardiaque yoo xam moom la ñuy wax comme cardiothyréose c'est-à-dire bi day accélérer ba ëpp rythme bi dootul normal mu nekk en insuffisance donc xol bi dootul mënati am kàttan boo xam ni moo ci war mhm. donc te loolu très souvent mën na emporter malade bi mhm. donc su yàggee ci yow donc loolu la ñuy ragal risque yooyu mhm. que mu mu dal malade bi complication cardiaque boobu am na lu ñuy wax aussi koy wax ci français crise thyrotoxique c'est-à-dire mu jékki-jékki nga arrêté garab bi nim noonu nim ko garab yi wàcce woon mu yëg brutalement donc yéeg boobu muy yéeg brutalement aussi mën na emporter aussi malade bi mm-hmm. donc loolu la ñuy bañ ci malaat bi di jël garab bi di ko arrêter par moment yooyu parce que dañuy ragal mu yéeg yéeg bu ëpp rek mm-hmm. si ay indi ko complication ci xol bi wala mu emporter ko mm-hmm. Euh, boobu soxalu traitement wu hypo bi euh, hypothyroïde tey ñu wax ci beneen bi nga xamante ne moom mooy hyper euh, ñaar yooyu xam naa ne am na bu ci gën a am doole fii ci Sénégal mais tey lan ñu mën a wax ci lu soxal euh, traitement wu ñii nga xamante ne ñoom ñoo yor hyperthyroïde fii ci Sénégal donc ñi yor hyperthyroïde moom la ñuy ñun suñu côté moom la ñuy gën a gis parce que ñi yor hyperthyroïde yi ñoom ñooy soxla def irathérapie jël iode bi mais ñi am hypo souvent soit traitement médical bi la mooy levothyrox boobu ñuy jël wala dañ koy opérer par exemple amee hypo ànd ak ay donji ci bi yooyu moom opération moo ci gën a moo tax systématiquement donc ñun malade yi ñuy gën a gis mooy ñaam am hyper ndax ñooñu ñooy soxla jël iode radioactif mhm. mais ñi am hypo donc souvent traitement médical bi la mooy hypo mooy dañ koy jox li ci manqué mooy maanaam ni muy fonctionné doyul mhm. donc dañ ko koy jox en comprimé loolu lay jël mais loolu da koy jël très souvent à mhm. mais hypo bi moo gën a moins grave que hyper donc aussi hypo bi soit bu fekkee dafa ànd ak ay donj loolu très souvent mën nañ ko opérer parce que donj yooyu mën na nekk mu nekk donj cancer mhm. donc bu dee cancer aussi faj bi médecine nucléaire mën na ci intervenir aat mais bu fekkee cancer la d' abord il faut ñu opérer ko ba pare léegi après ñu soog ko jox iode radioactif bi mm-hmm. pour que iode bi mën a rey cellule yu cancéreuse yu des yi nga xam ne chirurgien bi dindiwu ko mm-hmm. donc loolu mooy faj bi bu fekkee hypo la bu fekkee hypo bu ànd ak cancer tamit mm-hmm. forcément dañuy opérer après mën ko jox am na ci yenn forme yoo xam ne dañ koy jox iode radioactif. Euh, tey docteur nag mu mel ni kon euh, askan wi war nañ leen gën a xamle euh, jàngoro bi di thyroïde ndax nit yi dañ koy dégg rek mais apparemment ku am thyroïde muy hyper bi wala hypo bi boo suivre ce traitement wala am na nu muy defee sax nu muy demee autant pour moi da ngay exposé par rapport à d'autres maladies. oui lu lu mën nekk la xam nga boo amee hyper. hormones yooyu comme ni ma la ko waxee day agir pratiquement ci yeneen organes yëpp ci xol bi day agir ci bop bi day agir ci biir bi donc pratiquement ci cër yëpp lay agir donc y a des risques bu yàggee ci yow que mu altérer ce fonctionnement organisme d'une manière générale donc du épargner par exemple ki am hyperthyroïdie dem ay diarrhée parce que day accélérer transit bi day am day am insomnie du nelaw donc yooyu yëpp da koy indil ay trouble mën na am da dem sax ba am dépression parce que ñàkk nelaw bi ak anxiété bi donc tout ça c'est na ànd ak feebar bi la aussi mën na ànd ak euh, dans certaines formes ay ay diabète wala mu ànd ak yeneen i feebar yoo xam ne aussi day day gën a compliquer le prise en charge mm-hmm. wala nga am hyperthyroïde yi am ëmb ëmb bi de mën na ko aggraver mm-hmm. donc moo tax ñi ko am très souvent dañ leen di mettre sous contraception donc ñu du leen digal pour ñu ëmb ci période bi hyperthyroïde bi di manifeste parce que bu ñu jëlee grossesse grossesse bi c'est stressant ak yooyu yëpp mm-hmm. donc des risques mu aggraver ko donc loolu tax yooyu yëpp euh, c'est des choses euh, yu ñu war a bàyyi xel Euh, docteur am na ay jàngoro yoo xamante ne dañu am ay peut-être euh, cause génétique maanaam jàngoro yoo xamante ne da nga koy doon ci sa waajur sa pap sa yaay wala say maam bëggoon xam rek euh, ndax IP ndax thyroïde bokk na ci jàngoro yooyu nga xamante ne dañ koy doonante waaw am na une prédisposition génétique mais du ñi c'est héréditaire c'est-à-dire sa waajur mën na ko am waaye du forcément nga am ko waaye bu ko say waajur amee maanaam yow yomb na pour nga am ko c'est-à-dire tu la yomb yow pour mu pour mu dal la waaye du ñu systématiquement sa waajur bu ko amee da nga am donc c'est pas héréditaire mais am na une prédisposition géné génétique mhm. donc seetlu nañ ni ku ko am am na ku ko amoon ci parents yi wala boo seetloo am na ay mbokkam yu ko jege yoo am na ko mhm. donc am c'est pas forcément euh, héréditaire. Mm. Euh, euh, justement par rapport ak disposition boobu tey bu ñu doon wax rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi xam naa ne seen frange taxu ko bari noonu mais eh, ci ay recoupement information dañu gis que ne donte lim bi bariwul mais am na ay tout tànk yoo xamante ne dañuy am jàngoro boobu di thyroïde ndax ci ñoom neex na déceler comme famille ñu ngi koy déceler ci ñoom. si si ñaar yëpp xale aussi ñaar yëpp neen daal euh, muy hyper thyroïde muy hypo ñaar yëpp neen daal bu dee hyper bi comme ni muy manifesté ci mag lay manifesté ci xale xale bi aussi day nekk ci contexte boo xam xale boo xam ni dafa nekk ci jafe-jafe yu metti dund ci këram lu metti peut-être ay maltraitance naqaar yu muy dund yooyu aussi day tax xale yi aussi mën nañu am hyper mm-hmm. bu dee hypo bi aussi très souvent buy ñëw ci xale bi mooy da koy juddwaale mooy ndax hypothyroïdie congénitale mooy xale day ñëwaale ak thyroïde boo xam ne muy fonctionné mhm. kiiw lool tamit day laaj ñu diagnostic ko très tôt parce que hypothyroïdie bu congénital suñ ko jëlu euh, jël en charge day am ay répercussions ci croissance am ak ci wàllu xelam mhm. donc ñaar yëpp dañ koy dalu seen euh, il faut que euh, ko déceler wala mun ñu ko déceler au cours de ces en il faut que mu accoucher par ñu mën ko am ah, pour l'hypothyroïdie congénitale donc c'est il faut mu accoucher pour ñu mën ko xam mais peut-être il peut y des signes annonciateurs ci grossesse bi ci échographie bi ñu gis ñoo xam ni mën na alerté que mën na ko am mais il faut que xale bi juddu pour ñu mën a confirmer hypothèse waaw exemple boo defee échographie bi nga gis que y a des ci xale bi donc loolu c'est boo xam ni a la naissance war nga mën a saytu ko mm-hmm. pour mën a xam ndax malformation bi yan organe la affecté mm-hmm. ak yooyu mm-hmm. d'accord euh, dañuy des rek euh, ci wàllu woowu ñoom ñi nga ñoom ñooy tout tànk yi kon euh, ndax seen traitement moom c'est identique euh, par rapport ak mag ñi. waaw seen traitement euh, pratiquement baru différence mais boo jëlee comme irathérapie ñun bi ñuy def muy iode radioactif bi ñeneen ko jox ci xale mais au Sénégal jusqu'à présent commencé guñ ko di ko jox xale yi mm-hmm. d'ailleurs même euh, suñu collègue pédiatre discuter na ci man la dernière fois di mu wax pourquoi pas parce qu'il a beaucoup d'enfants yoo xam ni ñi am malade de base zew bi donc te traitement médical bi réglé wu ko te mënuñu leen opérer donc ce serait bien que aussi ñu mën leen a orienter vers la médecine nucléaire mm-hmm. donc xam naa très bientôt dinañ ci discuter pour mën a euh, ensemble xool comment euh, commencer ça ci pour faju xale yi mais bu dee bu weesoo irathérapie nga xam ne jëlaguñ ko pour le médical bi ak euh, chirurgie bi y a pas une grande différence mm-hmm. donc même garab yi la opération bi aussi c'est toujours la même chirurgie mais xale yi war nañ def le tout bañ mën a aussi am accès ci irathérapie bi waaw euh, euh, dañu des ci traitement bi rek ba léegi xam naa ne am na traitement boo xamante ne wax nga ko chirurgie bi peut-être à un moment la fekk jàngoro bi avancé na mais bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy médicament yi patient yi di jël tey euh, prise en bi ak prise de médicament bi ndax fii ñu toll ñi nga xamante ne ñoom ñooy souffrir ci thyroïde Euh, traitement bi euh, yemamaay ne par rapport à leur bourse waaw traitement bi souvent traitement médical bi euh, souvent dana am problème léeg-léeg yaa dana am ay période mu am rupture si traitement bi ñuy jël donc souvent boo amee rupture bi mooy li ma la wax par exemple boo jëlu sa garab mën na def rebond c'est-à-dire mu yokk yokk boo xam ne da lay indil complication donc am nay période yoo xam par moment ñu am difficulté am rupture ci médicament bi wa ila nit ki euh, mu dem ba am problème pour mënatu ko jënd ndax pendant ñaari at ngay jënd garab boole analyse yi ngay def te du nekk garab bi nga xam ne rek mooy fàcciro bi da am yeneen yu muy àndal comme yi nga xam ni pour xel mi la ngay mën a nelaw ngay bañ a am dépression ay anxiolytique yooyu parce que boo amee goiat sa xel day xaw a donc foog ñu dalal xel mi donc garab yooyu ngay jël yi nga xam ni aussi day calmer xol bi ni xol bi dawee yooyu yëpp da ciy bokk donc du nekk benn garab rek boo xam ne spécifiquement ci thyroïde bi la mais yeneen yi muy àndal aussi prise en charge bi day xaw a mettre ci maladie mhm. pendant ñaari at donc loolu mooy am tax maladie pour ñu observer traitement bi ci ñaari at day nekk lu jafe mhm. récidiver. ak risque d'abandon ak risque d'abandon su aussi comme ni nga ko waxee c'est fréquent mm-hmm. souvent maladie dañuy abandonné mm-hmm. donc parce que dañuy naan man sonn naa maa ngi jaabante hôpital rek boobu ba tey gisuma euh, résultat donc duñ comprendre que ni feebar bi moo demee noonu mm-hmm. donc euh, très souvent day am ay abandon loolu aussi lu lu jar a bàyyi euh, seen wàllu liggéey traitement bi di ci liggéey xam naa ak ñii di ñoom ñooy les cardiologues à un moment donné de la maladie wax nga ñàkk nelaw bi ñuy ñàkk nelaw ak stress bi mën na expliquer souvent xam naa ñu am ay ay ay trouble psychique euh, ci ban moment le euh, psychologue bi wala psychiatre bi war a mën a intervenir pour mën leen jox un tout petit peu benn coup par exemple malade bi bu nekkee ci di début bi nga xam symptômes yi ñi ngi franc nga mettre ko sous traitement médical nga gis ni parce que boo nekkee boo jëlee traitement bi aussi nga nekk ci ci environnement boo xam ni stress bi jógewu fa par exemple yaa ngi nekk ci jafe-jafe say la woon mi ngi continuer donc loolu même booy jël garab bi day day émat récidive parce que dañuy wax boo jël garab bi il faut aussi nga combattre liy indi stress bi donc moment boobu c' est important pour nga mettre ko en rapport ak psychologue psychiatre pour mu mën ko accompagner à faire face à cette situation mhm. donc mais malheureusement c'est pas toujours accessible aux patients donc d'avoir toujours une consultation ak psychiatre ak psychologue mais lu ci am solo la lu jar bàyyi xel la ci parce que pour traitement bi marché il faut que stress bi ñu mën koo éradiquer donc il faut que mu jël garab bi ba pare nekk ci environnement psychoaffectif bu bu bu bu propice. Euh, teg teg ci aussi que fii su ñu waxee peut-être euh, wala psychiatre rek dañuy jàpp ne am problème xel dañuy jàpp boo demee gis psychiatre rek mooy maanaam sa xel neexatul mhm. alors que c'est pas ça accompagnement bu mu lay def jàngal la une éducation comment faire interface pour éviter yenn euh, stress yu metti mm-hmm. j'avoue que man récemment am naa malade boo xam ne c'était la proposition parce que euh, c'était vraiment un cas partant un jeune mm-hmm. góor la sax cette fois-ci boo xam ni c'était le traitement médical n'a pas marché on a fait la thérapie une fois mu def euh, une récidive extraordinaire parce que il vivait des situations extrêmement difficiles donc mm-hmm. le stress était toujours là permanent donc tu es obligé de lui recommander une consultation psychiatrique pour au moins le calmer mm-hmm. dans ce genre de situation c'est important que malade bi am ku muy waxtaanal ku koy mën a dëfal ba nga xam ni dina mën a diminuer stress am mm-hmm. donc important mm-hmm. wax nga ko am nga cas ne xam euh, yi ndax bu tollee foofu traitement bi dina yomb ndax mu am ay médicaments yu mu jël d'un côté d'autre part mu war a am un suivi psychologique xam nañ ko comment ça se passe ak suñu pesanteur socioculturel yi naka bu ngeen tollee foofu yéen en tant que médecin euh, dina yomb ci yéen du yomb parce que euh, xam nga malade suivre day dem ba à un certain moment dangay am tuuti benn affinité bu bu ndaw ak ñoom parce que y a toujours euh, euh, cette proximité mu lay wax ce qui se passe day dem ba un certain moment c'est comme si tu yow da ngay vivre li muy dund donc c'est pas c'est pas facile j'avoue que patient bi c'est-à-dire à n'importe quel moment il m'appelle mm-hmm. donc c'est devenu quelque chose boo xam c'est normal mm-hmm. ça me pose aucun problème mm-hmm. c'est même ce matin <laughs> il m'a appelé parce que demoon na ba nga xam ni euh, il pensait que ni moom lii ce n'est plus possible que mu mu dépasser situation mm-hmm. donc c'était tellement difficile mm-hmm. donc on a fait l'irathérapie, ça marchait, on a fait le traitement médical, marché où, ñu def irathérapie marché où, on a été obligé de refaire l'irathérapie. Donc, donc, alhamdoulilah, donc a eu une amélioration ce matin, il m'a appelé pour faire le contrôle, mais il me dit qu'il ne rien. Euh, euh, euh, degré boobu noonu ndax c'est assez fréquent a mais en général irathérapie bi dañuy wax. ça peut marcher ci première dose bi nga jël benn yoon yoot bi radioactif mu marché mhm. mais dans de très rares cas mu am récidive mhm. donc depuis qu'on commencé c'est le troisième cas mhm. donc sur plus de cent cas on a eu trois cas de récidive et ñett yëpp bi ñu defaatee yoot bi deuxième dose a marché donc en général irathérapie moom euh, en une dose très souvent ça marche mais si ça ne marche pas à la deuxième dose forcément da ngay am euh, l'effet voulu. Mm-hmm. d'accord docteur ñu bëggoon xam rek euh, jàngoro bi di thyroïde ndax euh, dafa nekk jàngoro boo xamante ne eh, dafay faat wala boo suivre ce traitement bi eh, bon mun nga si génn à cent pour cent sama question mooy ndax thyroïde nit mun na ci ñàkk bakkanam quoi mën mën na ci ñàkk bakkanam mooy comme li ma lay wax sànq bu dee am nga complication yi ñu wax sànq mhm. complication yi mooy complication cardiaque bi cardiothyréose bi cardiothyréose boobu mën na faat nit mën na nekk aussi muy li ma wax sànq crise thyrotoxique bi mooy maanaam bu bu ñu garab bi rek hormone yi yéegaat yéeg bu ëpp yéeg boobu muy yéeg bu ëpp gaaw mën na faat malade bi mm. donc nit mën na ci ñàkk bakkanam mais c'est des situations exceptionnelles très souvent nag dañ ko nemmeeku ci bu dalee góor ñi en général ñoom dañuy def forme boobu donc mm. mais c'est rare mais lu mën a am la surtout bu arrêté garab yi jëlul garab bi donc mën na ko nekk ci contexte bu difficile mën na entraîner loolu. Euh, mu ma ni euh, li ci particularité jigéen yi ñi muy affecté ñoo gën a bëri ci traitement bi tamit am na benn aspect particu particulier jëm euh, ci góor yi. waaw góor ñi am na aspect particulier mooy souvent ñoom seen bos aussi dina nekk loo xam ne dina gën a naqaree jël en charge te aussi comme ni nga koy waxee jigéen boo jëlee boo defee irathérapie bi ñi nga naan jigéen gi warul jël ëmb. pendant trois à six mois tamit dañ koy digalee ku góor ki parce que iode bi boo ko jëlee donc day am tuuti effet ci sa organe bi ngay bi ngay sëyee mm-hmm. donc dañuy bañ mu affecter grossesse bi moo tax da lay interdire nga am doom pendant six mois donc góor ñi aussi léeg-léeg dina am jafe-jafe pour ñu comprendre loolu parce que dañuy jàpp ni jigéen mooy ëmb peut-être jigéen nañ mais boo nee boo jëlee garab bi waroo euh, euh, waroo am doom ci ci juróom benn weer yi donc nekk jafe-jafe donc en général jafe-jafe yi ñu ci góor ñi. pour pour prise en charge. Euh, euh, yi bëri na euh, ñu taxaw foofu rek par rapport ak le fait que mu nekk entre guillemets source d'infertilité parce que comme tu dis rek jigéen a góor ñoo jur mais fii pesanteur socioculturel yi dafay def pression de telle sort que xëy na boo xasee ba nekk ci néegu sëy dafa am benn durée boo xamante ne société bi dafa mel ni dañ la koy jagleel pour nga tombe en état. tey yaa ngi ak sa borom kër yaa ngi sëy mais yow am nga jàngoro boo xamante ne permettre wu la nga tomber enceinte mu mel ni loolu aussi tamit dina metti ci ku jigéen ki moom mu ngi xalaat euh, wérgu yaram mais de l'autre côté mu ngi am euh, regardu famille am ak belle famille am tey mu mel ni aussi loolu bu ñu suivre traitement bi aussi te amuñu ku ñuy defal euh, traitement bi dina yéex pour porter ses fruits am déet. lu wax am solo nga wax très souvent dañ koy rencontrer malade yu demee noonu te souvent seen problème yi la belle famille donc amaguloo doom te boo amee euh, problème mu hyperthyroïdie dañ lay defal contraception mooy maanaam dañ lay jox garab yoo xam doo am doom voilà non non dañ la koy proposer dañ la koy proposer yaa la lay digal parce que c'est pas recommandé nga nekk hyperthyroïde di di ëmb boobaa y a des de décompensation c'est-à-dire mu aggraver feebar bi moo tax dañuy bëgg la ba pare bala ngay jël ëmb donc très souvent nag des fois da ngay jigéen gi sax mu ànd ak borom këram pour nga mën leen ko nga leen expliquer ce am na nga am yoo xam ne seen borom kër du fi nekk mm-hmm. da ngay accepter sax ñu woo la téléphone nga discuter ak ñoom lu yàgg pour mën leen ko expliquer ndax très souvent mën nañ yaakaar te seen jabar moo bëggul am doom wala donc c'est des volontaire donc c'est des situations yoo xam ni au cas par cas dañ koy gérer mm-hmm. souvent ak waxtaan ak xam ne aussi ñu si société bi lañ bokk xam nañ ñi muy mm-hmm. donc xool nooy waxtaan ñoom ba ba convaincre leen bañ xam lépp pour sa wér-gu-yaram la mm-hmm. waaw mm-hmm. Ah, en tout cas euh, ça doit être des tâches un tout petit peu difficiles ak société bi nu ñu formanté moom c'est un peu compliqué surtout en ce qui concerne lépp lu jëm ci wàllum procréation mbokk auditeurs yi fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bii di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak euh, bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di euh, docteur El Hadji Amadou Lamine Bathily mu nekk spécialiste en médecine nucléaire waaye nag première partie bi dañ ko jagle woon jàngoro bi di mu mel ni am na hyper am na hypo waaye tamit euh, bu ci nekk ak traitement bi nga xamante ne moom nga war a jël waaye tamit bu ci nekk ak naka lay manifesté wu ak diagnostic bi nga xamante ne moom mooy déceler jàngoro boobu di thyroïde docteur euh, dugg ci euh, sa bi nag mu mel ni médecine nucléaire moom xam naa ñi farataal di déglu émission bi wala askan bi sax appellation boobu moom duma ma ne c'est pas familier waaye taxu koo doon du familier

waaw <laughs> wax dëgg la nekk na spécialité boo xam ne léeg-léeg bu la nit ñi laajee ban spécialité nga ni médecine naa luy loolu <laughs> donc c'est pas très connu waaw mais nag spécialité boo xam ni la ça existe depuis très longtemps mm-hmm. et maintenant ça, ça fait partie vraiment de la prise en charge de pratiquement toutes les pathologies médecine nucléaire da intervenir mm-hmm. aussi bien ci diagnostic bi c'est-à-dire pour saytu yenn feebar aussi bien si traitement mm-hmm. donc spécialité modalité boo xam ne da ngay utiliser ni euh, ñuy wax les rayonnements c'est-à-dire rayonnement ne nit ñi bu ñu koy dégg dañuy yaakaar rek c'est dangereux mm-hmm. comme li nga xam ni dañ koy utiliser pour def euh, yenn naka sudul noonu y des applications médicales mm-hmm. donc sans pour autant mu nit ki da nga koy diagnostiquer wala nga faj ko ci c'est comme booy dem def radiologie te def scanner wala yooyu pourtant patient bi ñu ngi koy jox envoyé ay rayon waaye comme rajo déggul nucléaire là c' est le terme nucléaire mooy tiital nit ñi voilà c' le terme qui fait peur mais niñ lay ni ngay envoyé ay rayon booy def scanner ak yooyu médecine nucléaire aussi c'est la même chose mais à la différence que rayon yi ñuy envoyé scanner c'est de rayon X fii c'est des rayon gamma mais c'est des technique toutes les deux yu utiliser ay rayonnement mm. donc c'est une spécialité quand même qui est qui n'est pas très connu au Sénégal il y a un seul service fonctionnel waaw benn service moo ci amagum euh, Sénégal buy fonctionner mu nekk hôpital général Idrissa Pouye muy CTO léegi am na voilà mais am na bu ubbi euh, hôpital Dalal Jàmm donc normalement war na commencer fonctionner biento soo jëlee ci wàllu médecine nucléaire Sénégal am na ci jàngalekat ci médecine nucléaire am na ci ay professeurs am nañ ci fi toll nii euh, am nañ juróom benni professeur yu agrégé ci médecine nucléaire te Sénégal sous région bi ñun rek ñoo ci amagum loolu mm-hmm. d'ailleurs même pour def spécialité bi pour ñëw ñu former la ci médecine nucléaire ci sous région bi Sénégal rek moo am donc ñi ngi former ay euh, yeneen nationalité présentement am na ñun jugee euh, ci beneen sous région bi ci yeneen dëkk pour ne pas citer leen mm-hmm. donc yoo xam ne ñu ngi fi def seen formation mm-hmm. malheureusement euh, sénégalais yi intéressé wu bëreegul donc loolu c'est politique de l'État mm-hmm. pour que service d'émergence nucléaire yi gën a bari ci dëkk pour que sénégalais mën ci gis seen bopp parce que dañuy bañ def spécialité bi après am fooy exercer donc il faut que service yi gën a bari loolu aussi c'est un plaidoyer parce que sinon li ñuy risquer mooy ñuy former ay étranger dana dem ba mujj gis ñun Sénégal ñun ñooy dem pour ñuy former mm-hmm. parce que ñooñu ngay former bu yàggee dañuy dem ñoom ñoo voilà ñoo ñuy gën a ëpp ñoo ñu ciy gën a aussi développé mm-hmm. donc loolu aussi c'est benn chose boo xam ne avec euh, l'appui de l'État war nañ ci taxaw pour ne mm-hmm. pas que situation boobu di di am. d'accord euh, justement euh, xam naa médecine ku nekk ak ak. ak seen niveau d'étude ñii dañuy spécialisé en pédiatrie def xam naa ay bac plus huit entre autres tey bu ñu jëlee par exemple comme yow sa genre bi eh, docteur El Hadj Amadou Lamine Bathily nga nekk spécialiste en médecine nucléaire euh, ci ban moment euh, ngay spécialisé wu euh, durée d'étude bi. durée d'étude bi pour pare déjà c'est huit ans. de formation médecine après ngay def spécialisation bi quatre ans donc ça fait douze ans là c'est le minimum maintenant bu fekkee carrière enseignant bi ngay def pour nekk professeur uh-huh. loolu nag beneen la bu nekk professeur bi bu <laughs> nekk professeur bi foog nga jàll assistant après nga dem maître assistant mm-hmm. après maître assistant foog nga dem def concours agrégation mm-hmm. concours agrégation bi euh, ñun moom lañ jàll euh, deux mille vingt donc yow la yàlla dogal ñu jàll ko mm-hmm. donc foog nga def sa huit ans médecine yi ba pare def spécialité bi médecine nucléaire spécialité bi quatre ans la mm. mais loolu c'est juste spécialité maintenant pour carrière enseignant bi nag moom kooku foog ngay graver échelon am ngay ay def ay travaux scientifiques di publier ak jàngale bi ngay jàngale diplôme mm. yooyu la boole ak concours bi ngay dem defi pour dem jàll titre professeur d'accord d'accord wax nga ko ci sa biir wax euh, xam naa ne euh, spécialité boo xamante ne noonu ñu bëggoon xam rek euh, ndax mun nañu am euh, ci ban moment précis vraiment la ñu euh, commencé tàggat suñu médecins yi en médecine nucléaire. waaw euh, daanaka suñu ñun ñi nga xam ñun ñoo ñu jàngal suñu maîtres yi ñooñu yàgg na leen ci tàggat mais temps boobu amul ci Sénégal amul Afrique dañ doon dem bitim réew di def ay formation mm-hmm. donc daanaka ñoom biñ demee retraite ñun ñoo nekk. relève bi donc à part ñoom donc am na pratiquement gàpp de génération boo xam ne presque entre vingt ans presque yoo xam ni à part ñoom parce que ñoom daanaka ils à la porte mm. kenn ki dem na retraite ñeneen ñi seen retraite soreetu daanaka benn at mm. donc ñun daanaka ñun ñu si nekk ñu des des jeunes entre si daanaka euh, trois lañ à donc si si quand même euh, ci ñoo xam ni actuellement ñoo nekk des des professeurs agrégés en médecine nucléaire ñoo xam ni tout le Sénégal donc c'est c'est insuffisant mais c'est beaucoup comparé aux autres pays de la sous région donc moo tax war nañ gënoon pour que loolu ñu yokk ko peut li ko gënoon causé mooy Afrique spécialité boobu amu fi donc tu étais obligé d'aller à l'étranger mais maintenant comme le Sénégal góorgóorlu na ba am assez de ressources humaines ñoo xam ni spécialité donc le Sénégal moo ubbi spécialité bi pour former maintenant ci sous-région bi donc mais malgré ça moyens yi technologie bi des na donc tu es obligé pour compléter sa formation nga dem à l'étranger parce que tout ce qu'on a besoin pour former amu fi donc loolu aussi un plaidoyer bu ñuy bu ñuy lancer le coût une spécialité quand qui est assez coûteux mm. donc euh, il faut euh, la première, la deuxième année, c'est aux environs de 1 million. Mhm. Donc, pour chaque année, donc première, deuxième, troisième année, il n'y quatrième année qui est pratiquement l'inscription pédagogique. Mais mhm. sinon, les autres années, c'est il faut au moins 1 million. D'accord. Euh. Euh, ñu des ci wàllu rek euh, en dehors de hôpital bi nga wax sànq euh, Idrissa Pouy ex CTO ak beneen bi dalal dalal jàmm euh, amul ñu ñoo xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu woowu mais dama bëggoon xam rek bu ñu waxee pédiatrie xam nañ ne peut-être ci wàllu xale la euh, cancer peut-être utérus yooyu ñu xam nan la ñuy faj bu ñu jëlee tey médecine nucléaire ñoom seen intervention ci lan la. médecine nucléaire. xam nga boo jëlee santé am na wàllu diagnostic ak wàllu faj diagnostic mooy saytu la pour xam jàngoro ji faj bi après soog a ñëw médecine nucléaire nag dina intervenir ci ñaar yëpp donc ci wàllu diagnostic bi am na analyse yoo xam ne ñun dañ koy def comme problème thyroïde bi ma la wax sànq pour xam thyroïde bi xam ndax hormones yi yokk nañ ñun analyse yooyu dañ koy def fii fii lañ koy def fii université donc am na analyse yoo xam ni médecine nucléaire ñoo koy def donc ay rayonnement la bi donc aussi ci boo jëlee ci diagnostic bi dañ def aussi ay rajo lu ñuy wax scintigraphie scintigraphie boobu appareil boobu moo nekk hôpital CTO général de donc scintigraphie boobu appareil boo xam ni la dañuy permettre suñu injecté malade bi produit radioactif bi comme maanaam nga bëgg gis thyroïde bi mm-hmm. donc soo injecté produit bi bi produit bi day dem fixé wu ci thyroïde bi day am ay rayon yu muy sànni rayon yooyu moom la appareil bi di détecté donc jox ñu image yu thyroïde bi ñu xam ndax mi ngi fonctionner normalement ou non donc dinañ def scintigraphie boobu ci thyroïde bi dinañ ko def ci rein yi comme maanaam xale yi nga judd yi nga xam dañu juddoo ak malformation ci rein yi donc chirurgien bi bëgg a xam ndax formation boobu la ko war a opérer déet dina leen def loo scintigraphie rénale ndax scintigraphie rénale mooy xam ñu xam ndax rein bi mu ngi fonctionner normalement wala déet mm-hmm. dinañ ko def aussi si xol bi mm-hmm. mooy ñi nga xam ne dañu am problème problème li ñuy wax crise cardiaque infarctus donc xol bi benn sidit yi indi deetu xol bi bouché yooyu dinañ def scintigraphie pour xam ndax xol bi partie boobu dee na wala deewul donc scintigraphie na ko def mhm. scintigraphie aussi dina interveni ci parathyroïde yi mhm. mooy maanaam organe li ñu nekk ci ginnaaw thyroïde bi mhm. yooyu aussi dinañ ko xool scintigraphie na xool aussi ci wàllu yuur gi donc daanaka scintigraphie fépp lay xool donc ça dépend ci organ bu nekk la ko dal ak produit ba ngay utiliser pour xool ko mais problème bi mooy euh, appareil bi ñuy permettre ñu gis organe yooyu yëpp actuellement appareil boobu amaguñ ko Sénégal peut-être dalal jàmm am nañ appareil bu bees dina renforcer loolu donc ak toujours produit bi ñu koy defee léeg mu manqué ndax amul fi Sénégal dañ koy jéegaani bitim réew waaw loolu ci wàllum diagnostic bi la donc am na analyse yu ñuy def ak scintigraphie mm-hmm. léegi ci wàllu faj bi aussi comme par exemple mooy li ma la wax ñi am goitre mhm. suñu defee traitement médical bi marché wul dinañ def lu ñuy wax irathérapie irathérapie mooy dañ koy jox iode radioactif pour rey cellules yi mhm. irathérapie boobu dinañ ko def aussi ñi am cancer thyroïde donc ñi am cancer thyroïde bu leen opéré ba pare dinañ jox iode mais boobaa ñooñu dose bi leen jox mooy gën a bari mhm. donc da leen di hospitaliser mais malheureusement boo leen hospitaliser ci ay chambre yoo xam des chambres plombées la war a nekk par exemple malade bi bu amee cancer thyroïde dose bi nga koy jox ci yoot dose bi dafa bari donc du mënu ko jël dem ñibbi këram foog dañ ko war a hospitaliser à l'hôpital mhm. maintenant hospitalisation boobu dafa laaj condition yu particulière condition yooyu déjà fi nga koy hospitaliser chambre bu ñu plombé la ba pare da ngay war a am foo xam ne ngay recueillir urine yi ndax urine yi day am activité pendant un moment donc condition yooyu nag mm-hmm. réuniragul Sénégal mm-hmm. moo tax actuellement défi bu majeur ndax maladie am cancer du rein ñu opéré ñëpp mënuñu bénéficier ci traitement boobu mm-hmm. donc ñi am moyen dañuy dem si ay Maroc Tunisie yooyu defee ko ko ñi amul moyen donc mënuñu jot ci traitement boobu donc loolu aussi c'est benn plaidoyer bu ñu lancé à l'état pour que ñu mën a mettre les conditions pour que ñu mën a def radiothérapie boobu ñu am cancer thyroïde mhm. donc am na aussi ñi nga xam dañu am cancer cancer bi dem ba jàpp seen yax yi mhm. di indil ay mettitu yax yu terrible yooyu aussi am na yu leen jox ci médecine nucléaire pour calmer douleur yooyu mhm. voilà donc dañuy intervenir ci diagnostic comme ci traitement mais actuellement le gros souci mooy disponibilité faj yi ñu mën a def yëpp les moyens yu disponible bañ mën ko def mhm. donc c'est ça actuellement le défi majeur mais la médecine nucléaire même ñi en par exemple cancer sein mhm. médecine nucléaire da ci intervenir ci diagnostic bi day intervenir aussi ci traitement ñi am cancer prostate la même mhm. chose am ñi am cancer sein ak cancer prostate cancer bi mën na law dem jàpp yax yi mhm. ñun dañ leen yi wala déet mhm. donc tout ça c'est la médecine nucléaire donc c'est une spécialité actuellement qui est devenue incontournable ci ni ñuy jëlee cancer yi surtout donc dans le monde maintenant la médecine nucléaire est devenue une une spécialité incontournable mais au Sénégal yooyu yëpp nag Euh, disponible gul euh, actuellement. Euh, seen lim taxu ko demee noonu en plus de cela matériel yu ngeen di soxla pour def seen liggéey ci anam bu mucc ayib nekk na loo xamante ne eh, dafay compliqué tey moo waral rek xam naa ne kon seen liggéey jafe na en plus ngeen am surcharge de travail parce que lim bi bëriwul ba pare conditions yi réunir. c'est un peu difficile parce que lim bi bariwul nga boole ko ñun activité hospitalière yi boole ko activité universitaire yi mm-hmm. yaa ngi hôpital mm-hmm. yaa ngi jàngale mm-hmm. donc te lim bi bariwul boo jëlee euh, faculté médecine amul dafa Dakar am na Thiès am na Ziguinchor am na Saint-Louis Bambey récemment am na donc ñun suñ lim bariwul man mi damay dem ba Saint-Louis léeg-léeg di fa jàng damay dem Ziguinchor da ngay dem Thiès donc loolu lépp dafa bari nga bëgg ko boole ak ak faj bi mm-hmm. bu seen lim bariwul mm-hmm. conditions yi réunir aussi des fois par exemple produit bi manqué maladie teg la une pression di jaabante di ñëw loolu lépp c'est des choses à gérer mm-hmm. donc au lieu que yow nga nekk sur l'essentiel di liggéey di jàngale di faj yaa ngi léeg-léeg toppatoo ndax produit bi kañ lay ñëw manqué na ñëw malaat bi ñëw na ñu ni ko amagul loolu lépp c'est des situations difficiles à gérer mm-hmm. parce que le médecin li weer a nekk préoccupation mooy faj bu dee dañ universitaire ak jàngale mm-hmm. mais lépp dafa war a nekk à ta disposition pour nga mën a def loolu correct correctement. Euh, tey pourtant on parle yenn saa dañuy dégg ci ñu autorités yi ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllum wérgu yaram à chaque fois dañuy wax que ne recruter nañu ay nit jëm ci wàllu euh, médecin yi yokk nañu le plateau médicale avec euh, yenn saa yi ñu wax ay somme d'argent sax yu xaw a bëri ñu injecté tey ndax jotul yéen ngeen wane seen bopp pour vraiment ñu gën leen mën a xam waaye waaye tamit ñu gën leen euh, mën a dooleel ndax su ma la déggee bu baax euh, li ngeen di nécessité euh, ci en terme d'infrastructure wala en terme de koom-koom du lu yemamaay. waa loolu dëgg la infrastructure yi ak moyen yi moom. du état bi deful dara mais li des aussi bari na c'est-à-dire suñu dañu war a teg suñu bët fu war a gën a sori mm-hmm. maanaam dooni am naa benn service comme par exemple état bi def na effort ubbi dalal jàmm indil na leen appareil bu bees ñu koy installé mm-hmm. donc CTO aussi ñi ngi yaakaar am appareil bu bees donc loolu suñu bët war na weesu loolu c'est-à-dire war nañ dem ba xalaat ni ka nekk Tambacounda ka nekk jigéen Ziguinchor war na ni ki nekk Dakar di amee possibilité dem merci nucléaire def une scintigraphie wala mm-hmm. def une radiothérapie ka nekk Ziguinchor ka nekk Tamba war na am boobu possibilité mm-hmm. donc suñuy bët war na weesu wala aussi nga ni benn service rek dalal jàmm war nañu xalaat ne benn appareil rek doyul war nga am yeneen ñaar c'est-à-dire il faut une prévision xool sa population nu mu toll nga ni nii mu toll war na am ñaata service mm-hmm. donc population bi c'est pas normal nit ki di jóge Ziguinchor di ñëw ba Dakar par exemple ñun dañuy jot ay malades yu jóge Tamba Ziguinchor Saint-Louis def si radiothérapie ak scintigraphie loolu nga jël Euh, dooleem tollu noonu war a ñëw Dakar transport bi war a jël boppam en charge wala fayaat rajo bi war a delluwaat tout ça c'est ça pose problème mm-hmm. donc du ñi état bi deful effort certes y a des efforts mais ces efforts la dañ ko war a dolli mm-hmm. donc pour man suñu ambition war na gën a kawe que fi ñu toll mm-hmm. ah, ah, ah. d'accord d'accord foofu laa doon euh, yegg si sax euh, ñun amuñu assez de euh, lomb bi bëriwul ñi agrégé yi bëriwul professeurs yi bëriwuñu mais ci ci beneen fànn bi ñu jóge ci sous région bi dañuy ñëw fii pour suivre lool di médecine nucléaire docteur Bathily ndax loolu aussi c'est pas un peu contradictoire voilà c'est pas contradictoire parce que dañuy dañuy toog à un certain moment une spécialité bi ça n'existe pas en Afrique donc avec euh, ndimbalu AIA mooy agence internationale énergie atomique mm. dañuy xool ñu ni dañ bëgg spécialité bi ñu ubbi ko ci sous région bi léegi dañu xool ban dëkk moo ci gënoon am ressources humaines donc le Sénégal était le seul pays ci moment boobu parce que bi ñu ubbee DSB léegi sa fait cinq ans mm-hmm. donc le Sénégal était le seul pays bu amoon trois professeurs agrégés en médecine nucléaire mm-hmm. donc kenn am ñoo xam ni gën gaa bari kenn lañu am donc le mm-hmm. Sénégal était le plus en avance ci côté boobu mm-hmm. donc et depuis boobu léegi en plus de ces on a eu aussi yeneen quatre yu agrégé mm-hmm. donc ce qui fait que donc on a sept kenn ki dem na retraite donc on reste six agrégé maintenant dañu war a bañ a nelaw di si dire d'ici def ay des projections pour ne d'ici at yi ñëw war nañ amaat autant d'agrégés pour ne pas que ñi ñuy former ëllëg ñu dépassé ñu mm-hmm. et aussi état bi renforcer euh, infrastructure yi renforcer matériel yi pour que ñu gën a mën a assurer formation bi intégralement au Sénégal parce que formation pour mu complète for nga génn des fois dem am na yoo xam ne amagul fii mm-hmm. donc tu obligé étudiant bi alors certainement mu dem voyager jàng li nga xam ni amul fii. Mhm. Euh, léegi bu étudiant bi amul bourse d'accompagnement wala moom euh, financièrement mënul euh, dem def ses ses ses études poursuivre à l'étranger ba xam dafay limité wala comment ce que ça se passe. très souvent on le soutien ñu koy defagum le soutien de l'agence internationale de l'énergie atomique. donc même étudiants yi nekk fi nga xam ils sont de d'autres nationalités. après agence bi def ni di may bourse pour ñu dem de euh, compléter leur formation donc maintenant suñ demee ba étudiants yu bari dans ce cas il faudra l'appui de l'État mhm. fekkee i a des Sénégalais qui s'intéressent mhm. mais pour le moment comme le nombre est limité l'agence arrive à toujours assurer cette formation complémentaire docteur Bathily euh, bu weesoo lim bu néew bi ak euh, manque d'infrastructure yi mel ni nag war nañu ba gën a góorgóorlu ndax yenn saay dañuy wax dañuy décentraliser dañuy décentraliser mais le constat est là boo buggee def yenn analyse wala yenn rajo yi da ngay jóge ba ginnaaw foog nga bi eh, pour ñëw Dakar def ko ndax aussi loolu waru nekk vraiment un défi boo xamante ne suñu autorité war nañ ko je la bu ñu war a à l'heure où nous sommes war nañ Sénégal dépassé que ñu ni euh, nit dina jugee euh, tel dëkk pour ñëw Dakar pour loo xam ni pour man euh, au fond fond du Sénégal ça devait être disponible mm-hmm. c'est-à-dire bu ne nga ni nga jël en charge cancéro cancérologue yi malade bu am yenn cancer yi foog mu ñëw ba Dakar pour ñu mën ko faj avec prise en charge cancer ni mel donc pour moi c'est problématique normalement en fonction yenn fréquence yenn feebar yi l'État devrait donc travailler de telle sorte que mm-hmm. euh, fu euh, bi nekk ñu limiter les déplacements parce que loolu mooy indi actuellement euh, saturation hôpitaux Dakar yi parce que ñiy jóge ci région yi di ñëw à Dakar c'est énorme mm surtout dans la prise en charge des cancers mm-hmm. donc là c'est un défi pour que ñu relever même à Dakar les moyens ne sont pas encore suffisants. Donc, Bogiti Djel en charge aussi c'est ce qui sont dans les régions. C'est-à-dire, c'est même comme dans l'imagerie, boo demee benn hôpital. comme ñu ni am nañ scanner ci hôpital am nañ IRM c'est-à-dire benn scanner benn IRM c'est insuffisant c'est-à-dire le euh, l'État devrait par exemple dans les hôpitaux créer des services d'imagerie d'urgence mm Alhamdulillah, c'est réservé qu'aux urgences, ben, le service d'imagerie oui, qui va gérer l'hygiène tranquillement. C'est ce qui fait que souvent les appareils tombent en panne parce que c'est surutilisé. Donc, tout ça, c'est des choses à gérer. il faut que l'État, ta à dire dañu war a am des ambitions yu gën a kawe c'est-à-dire on doit pas se limiter à on a amené un scanner un IRM à Dalal Jamm pour moi ça c'est pas quelque chose d'extraordinaire le défi serait que Sénégal bu bëgg a def IRM en quarante huit heures mu mën ko def Sénégal bu bëgg a def scanner dans les vingt quatre heures que mu mën ko def Sénégalais bu war a def une prise en charge de son cancer que mu disponible fa mu nekk mhm. c'est ça les gros défis mhm. mais pas euh, def nañ scanner fii à benn scanner pour moi ça c'est insuffisant mm on devrait avoir des ambitions plus plus élevées que ça waaw loolu aussi si. n'est-ce <laughs> pas <laughs> la rajo si oh, oh, ce qui l'amène si ce qui l'amène mooy. que ni les services d'imagerie sont surutilisés. ak benn scanner moo fay nekk pour jël en charge aussi bien les urgences que les rendez mm-hmm. donc à la limite appareil bi day aussi de maintenance. Donc très souvent, euh, la maintenance n'est pas disponible sur place. Donc il faut faire appel à des, à des experts qui vont venir, par exemple, nous, sur nos appareils, le service de maintenance vient de l'étranger donc tout ça quand il une panne boo xam ni c'est donc ils doivent venir pour le pour nous dépanner mm. donc ça c'est aussi problématique il faut que la voilà il faut qu'on qu'on arrive à gérer aussi une, euh, la maintenance mm-hmm. au niveau local mm-hmm. donc ça aussi c'est un, un défi à relever mm. euh. relève plateau médical bi a chaque fois dañ koy wax euh, xam nga docteur lo gën a metti nga dem hôpital ñu la maanaam lii dafa panne revient dans quarante-huit heures <laughs> waaw doy na waar waaye lu jafe la ci lu jafe la ci kii faj am kii faj moom bu sañoon bu gisee malade rek mu jël ko en charge mu dem ñibbi donc très souvent day difficile ndax a comprendre léeg-léeg sax dañuy yaakaar ne ci ci càggante kii faj la alors que kii faj moom moom euh, bu sañoon loolu nga fekk ko fi nga xam ni moom boo ñëwee mu jël la en charge directement donc très souvent y a ce problème de communication donc l'information n'est pas tellement y a day am benn waaw de désinformation cest biir malade yu ci bari duñ comprendre que ni lii nekkul ci coobare kiy faj mais ki ko war a mettre à la disposition kiy faj la mm-hmm. parce que scanner bu fan du kii du kii faj moo ko moo koy jël en charge moom lii liñ koy xaar mooy scanner baa ngi fi ne ko defal malade bi jox ko résultat chirurgien bi malade bi ñëw na mu opéré ko waaye xam nga chirurgien bi dem ci biti jël malade bi comme très souvent di nga dégg ñu ni malade bi ne dama dem ñu laaj ma temps na ma boo koy dund ma xam nga loolu <laughs> boo ko déggee da ngay ree sax da nga bi moom joxoo ko xaalis moom du jël sax xaalis mm. xam nga lu muy xaar nga jox ko autorisation d' opérer autorisation d' opérer bi ku la koy jox administration bi mm. donc xam nga moom yoonam néewul ci loolu donc mais information bi jàll comme ñor a jàllee ñun la boo demee urgence dañ lay jël cent pour cent nga ñëw urgence am nga par exemple benn ñu war la defal benn garab amul ci hôpital bi mënu lul bindal la ko nga dem jëndi ko donc soo ko indiwul la jël en dana dañ ma fa seetaan mm-hmm. jëluñu ma totalement en charge donc tout ça l'information la bonne information malade duñ duñ ko duñ ko am donc mhm. tout souvent de loolu day indi problème entre ñoom ak kiy faj mhm. mais ki faj moom bu sañoon dépp yomb mhm. malade bu ñëw jël ko en charge donc très souvent nag c'est des problèmes yoo xam ni soit disponibilité kii bi la wala soit euh, problème de place aussi ça arrive souvent euh, sant ko gërëm ko waxtaan mi am na solo mais dafa mel ni on est par le temps docteur euh, El Amadou Lamine Bathily fàttali mu mel ni li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ci. Euh, ñu ngi lay gërëm euh, madame Fall di rafetlu euh, seen invitation di leen gërëm di gërëm waa Rewmi FM yëpp di rafetlu seen liggéey di gërëm ñi ñu doon déglu ñëpp leen sant di leen wax ne ba baneen yoon incha allah. <laughs> sant ko gërëm ko moom docteur El Amadou Lamine Bathily ma fàttali ne moom spécialiste la en médecine nucléaire mais laata loolu nag waxtaanee nañu lépp lu jëm ci jàngoro bi di thyroïde naka lañ koy amee ak boo ko amee naka nañuy def ba daal di ci indi ay traitement bu mucc ayib fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité